asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah bilaay yaram daw na dama ne yaram daw na képp ku dib Sénégalais xool fi Ousmane Sonko jaar ak fi ñu ko jaarale lépp lalu ci kaw tooñ kaw tooñ ewaay suba suba ak jàmm dama ne comme ni mu ko waxee rek procès public la fu nekk na waaxu dem fu ab senegaale nekk na waaxu dem dem boo xam ci dal ak teey ak déglu ak jaar ko ci yoon amuñ wenn kayit benn dossier bu mën a sukkandiku jàpp ko amut waaye nun comme Ousmane mu yëkkati bakkanam teg ci suñ loxo dafa ne war na ko mën a taxaw war nañ ko mën a taxawu de maa ngi soññ yëpp nag patrouille yëpp maa ngi leen di soññi yaram wi ne kon maa ngi ci biir dama ne yaram wi neexut ne kon maa ngi ci biir waaye xel mi du toog xol bi du toog dama ne kuy waxambaane jógal kuy mag jógal kuy jigéen jógal Ousmane dañ koo tooñ tooñ bu metti tooñ bu jaarut ci yoon Ousmane lu yëngu ñu ne ko tribunal lu yëngu ñu woo ko def lu kenn dara bilaay def lu kenn dara comme am na ngor wóolunu wóolunu ko ruum teg ci son loxo dama ne kulli ku dib Sénégal responsable dama ne kulli ku dib Sénégal responsable awaay ah Sénégal jóg leen xam naa da ngeen jóg de Kër Masaar la fa xew gis nañ ko naam de woon Mbàkke gis nañ ko te Mbàkke bii dikki dana xar foofu Sénégal nekk ni jóg te xam ne jóg jot na billaay Ousmane dem billaay Ousmane du dem dama ne billaay wallaay Ousmane dem nous avons un peuple décidé un peuple bu taxaw taxaw ak dëgg wiiru ci yàlla dama ni général Moussa Fall lay ruux nga siir Ousmane du dem dama ne Ousmane du dem jotuloo kenn tar eh ba jàmbur kon daal suba suba laa ne bu kenn manqué ndigal dama ne ndigal jib na dama ne waxe Ousmane yi dafa xóot ndigal jib na dama ndigal jib na suba bu kenn manqué leen rek moo tax a ngëm jooy doole ju néew ji waaye xel mi macha allah àgg na fu ne sukkar si ak jabet waaye day sama sët yi sama doom yi billaahi wallahi taala ni leen Ousmane wóoloo bu jëlu ruum jox leen nu ko raw nu ko raw wóoloon naa leen ko xam da ngeen fay naar ba xoromam damay Ousmane du dem Ousmane du dem te du dem kon daal suba bu kenn manqué comme ni ñu ko Ousmane waxee audience publique la kenn ku ne am ko du droit dugg toog gesaal ba waaw bu leen nangu ñu dugal seeni nit ñoom dong xale teel leen dem teel dugg toog am ngeen fa wàll sañ faa toog ànd ak Ousmane nu déglu ko bu noppi jiital ko delloo këram kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi di ziar yi ñëpp man la Seydina Ousmane drame bu la réveil des consciences yàlla nañ buur yàlla suturaal ay wii ak safara si ñott ci dëkk bi ñu ko ci ñodd yàlla na xëpp ci ñoom réew mi jàmm rekk a fi xaj coow lu fi am te nar fee am kenn yëkkatuwul Macky Sall groupe am bi waaye yàlla du nit te ni leen wóor ne ña ca baar sàq ñoom Sëriñ Tuubaa ak Alaaji Malick ñu ngi jàkkaarlook li xew dama ne Thierno Alassane Ba mu ca baar sàq Lat Dior ma ca baar sàq ñëpp a ngi jàkkaarloog Ousmane bilaay Ousmane du dem Moussa Fall Ousmane du dem jaa jëf bu suba jàmm